قرنا من نوره نيل ما نلنا من الوعي قرنا من نوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أو حمدا لله تعالى الذي لا تتم صالحات إلا بفضله wala tanaalu darajatan illa bi awnihi wa salaatan wa salaaman ala sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam mbokku jullit yi taalibe yi mbokki pas-pas yi mbokki diine noo ngi leen di nuyu ci sunu télé bu tedd bu sell bi ñuy wax caam Sono TV tabarakallahu ñu leen di yëgal ni nekk émission bi incha allahu rabbi chaque mercredi rek incha allah vingt heures daañ ko dugal bu soobee yàlla vingt heures trente incha allah ku ko suivre di ko gis en direct incha allahu rabbi ci Thiam Sono TV ñu di ko yëgal mbokk jullit yëpp ñuy jéem rek ci téere sunu maam ju tedd ji Cheikh Seydul Hadji Malick muy téere bi ñuy wax Taysiir ah fa tabarakallahu mbokk yi eh, mercredi bi passé ñoo ngi yemoon ci min nuurihil min nuurihi xuliqal aqwaanu yàllaahu kon buñ ñëwaatee ci mercredi tey bi incha allahu rabbi ñu def laytaay ci foofu ci ngay déggee bayit bi ñu jëm ginnaaw bi ñu nuyoo xalifa bu tedd ba ca Tiwaawun nekkal fa maamam Cheikh Seydul Haaji Malick muy Sëriñ Babacar Mansour ak i rakkam ak njaboot ji yëpp nuyu sunu bunt ci kër Seex Seydul Haaji Malick muy Serif Ibrahima Aydara Tijaani mbokk yi démb ñoo ngi yemoon min nuurihi e, mercredi bee passé ñoo ngi yemoon min nuurihi xulixal akwaanu yallaahu tey nag ñuy dem ci law lam yalux fii fadail kawni tal tabqal bariyatu fii zalmaa'i wala tabaqa albariya fii zalmai allahu tabarakallahu mbokk yi ñoo ngi junj am solo foofu c'est Seydul Haaji Malik ni muy waxee dangay ngay yëg ni kii ni mu xane xamee boroomam ëpp na xam nga moo gi tëjee woon xulixal waanu xoolal mu indiwaat lawlam yalu fii fadail kawni ba léegi muy akwaan bee jàmm u bii fa tabarakallahu nekk téef la uh, lawlam yalux bu nabi fenkul woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam fii fadail kawni ci ndendub nekkteef gii muy àdduna tal atuhu akib juddoom tal atuhu akib amam jaaree ci yaay aminatu ak bay abdullahi ba Moustapha dikk ci àdduna tal atu bi juddu lay firi waaw wa mawliduhu bihi sarafun wa xiirun way tal atuhu juddoom moom yonante bi bu juddu woon ba am ci kaw àdduna bi kon tabaqa danañu des albariyatu mbindeef fi fii zalma iyallahu ci lëndëmaay boo xamante ni kenn du xam fi nga jëm waaw mooy lëndamaayu moom la olof di wax lëndëmaayu palamtiku palamtiku mooy làmbatu ci biiri lëndëm boo xamante ni loo fa daj nga foog ni yow a te fekk ñeneen yéen a fa ne bu Moustapha feeñul woon ci àdduna bi àdduna bi palamtiku lay doon tabaarakallaahu ñu tegaat ci beneen bëri ba muy nuurun minan nuuri qad aw daatuhu xikaman tafiidu faydan alal axlaaqi yallaahu nuurun leer la moom sayiduna muhammad minan nuuri bi bu tukkee ci leer ci ngay jàngatee ca alquraan yàlla dila ko léebu waaw ñoo ngi ciy ñëw léegi xat aw daatahu yàlla dénk ko xat sa dëgg-dëgg aw daatahu dénk na ko moom yàlla xikaman seses xikaman muy xereñte moom yonante bi xam-xam boo xamante ni tabarakallahu mooy xam-xamu xereñ tafiidu dana bëbbeekoo faydan akub sotteeku waaw alal axlaaqi ci mbindeef yépp yallaahu yàllaa ko jaarale ci yonante bi waaw ci leeram la lépp di bëbbeekoo ci leeram la lépp di ame bu ñu delluwaatee ci bayit yi ñu indi ya ca biir ak tabaarakallaahu fa mu koroosante ci baytu cheikh sayidul haaji malik yi law yelux boo delloo ci baay Ibrahima Ñas daf lay wax ni mata bada fii daajil bahimi jabiinuhu yalaxluxu misla misbaaxi duja al mutawaqidi waaw mata bada keroog ba mu tàmbalee moom yonente bi fii daajil bahimi ci kukkub lëndëm ga jabiinuhu jëxam ga moom yonente bi yalaxluxu baay Ibrahima Ñas nee na dafa doon lay-lay di leer waaw yalax luxu boobu moom ngay dégg saydul xaaji malik moom góor ga moom la feelu foofu wa wajhu xayrul wara muxtaari min mudarin minata laalu i badurun fii duja zulami mooy yalax luxu waaw misla misbaaxi duja ba mu mel ni làmp bu fenk ci biir lëndëm al mutawaqidi ba ñu taal ba laal contact ba tabarakallahu lëndëm boo xamante dugg nga ca nga laal contact ba ni barab ba di leere noonu la jeexu sayyiduna Muhammad def àdduna yi juróom-ñaar waaw loola kenn mësu gis fii fada il kawni fada mooy ndend al kawni mooy nekk téef tal atuhu fenkam nga tal atuhu juddam nga moom yanante bi ci la lépp leere man suur ci ngay yégee ca nuuniya fa Seydil Haaji Malik di waxee atawal kufru fii jawrin wa dulmin fa xaadal kulla an diinin li diini waaw kooku nekk pour nga firi ko da ngay delluwaat ca màkkatal mukarrama keroog avant yonent bi di ñëw màkka lëndëm yàlla woote yaa ayuhan naas képp kuy nit rek dikk nga yaa ngi bokk ci groupe googu annaas amagooloo jàpp yaa ngi ci kaadaru nit rek mais yàlla teral na la ci walaxad karram naa bani aadama kooku bokk na ci naas waaw yonent bi bi mu waxee yaa ayyuhan naas ñëpp a si mu bëgg a seggi yàlla ne ko da ngay daw ba àgg ci sa buntu kër nga taxaw wootewaat beneen woote bu bokkut teg bi nga woote muy yaa ayyuhal ladina amanu su ko defee ñi gëm rek kay dikk mu doon ñaari groupe tabaarakallaahu ñi tudd naas ak yéefar ñi gëmul ñoo ngi taxawee nele ak eh, beneen groupe ga di naafiq ñu taxaw di seetaan ndax naafiq alaaji Mansour ci jullit ñi lay bokk mais du bokk ci yéefar yi waaw mooy mu zamzabina bayna zalika laa ilaha ulla wala ilaha ulla du doon yéefar jullit lay doon waaw tabarakallahu woote yaa ayuha allazina amanu am ñu ko topp yéefar yi seggeeku yàlla ne ko dangay daw ci sa biir ëtt nga wootewaat beneen woote bu bokkut ak amanu waaye amanu ja nang ca dugal saalixa ki gëm ga noppi di jëf-jëf ji yiw ba mu seggee ñooña nekk fa tabaarakallaahu la këf gay doora a sotti moo tax sayidul xaaji malik wax ataa juddu na wal kufru booba yéefari fii jawrin ñoo ngi ci jeng wa zulmin ak tooñante ku mën sa moroom def lu la neex fa xaadal kulla nabi ommat képp ku nangu an diini jële ci moy yàlla li diini jëme ci gëm yàlla xoolal ñaari diine yooyu tabaarakalaaw ñu bokk bind waaye ñu safaanoo ci piri sayidul xaaji malik noonu lay bindee tabaarakalaahu moo tax mu neen eh, judd gi yonent bi juddu Pape Mansour bu amul woon kon tabaqaa danañu des albariyatu mbindeef yépp mbindeef yépp kenn desul fii dalmaa i ci lëndmaay boo xamante ni ku ci nekk dangay ngay palamtiku di dej sa bopp foog ni keneen nga dej waaw mooy masalul ladina kafaru masalul ladina kafaru waaw mooy misaalu gaa ña nga xamante ni ñoo weddi yàlla masalul ladina astawqada naar waaw masalu alladina astawqada annaar falamma adaat ma xawlahu dahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi zulumati la yubsiruun waaw ñu ànd ak ñett summun bukmun umyun fahum la yubsiruuna waaw ah, ñett yooyu la màkkatal mukarrama nekkee woon avant yonent bi di aksi ci lëndamaay boo xamante ne kuy palamtiku loo daj nga foog ne yow a te fekk keneen yéen a fa ne ndax ñàkk gëm diina lislaam ka leeral loola nekk mooy sayiduna muhammad keroog ba mu juddoo màkkatal mukarrama fenkam ga ca amam nga ci la leeralee loola moo tax nga dégg Maodo wax nuurun leer la minan nuuri bu tukkee ci leer moom sayiduna muhammad foofu ñu taxaw ci tuuti sunu maam seex saadu abbihi dafa bind ne nuurun minan nuuri ila nuuri fawqa nuuri min nuuri nabi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tuuba feeru ko ne nuurul azimu qad yara bihi xusuuru xaysara man kaana fi makkatil fil makkatil xura xayru xuram man kaana fi makkatil xayru xuram xayru xura tabarakallahu muy nuurul leer la minan nuuri bu tukkee ci leer seex saa du abbeey wax ila nuuri jëm ci leer fawxa nuuri nekk ci kaw leer leer yooyu yépp foofa xool ta gis ca leer min nuuri nabi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi tukkee ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sëriñ tuuba feelu ko ne nuurul leer la moom yonante bi azimun bu mag nuurul azimun leer bu mag mag xat sa dëgg-dëgg yaraa gis nañu leeram keroog ba mu juddoo xusurul xaysar waa téegi xaysar ya waa néegi xaysar ya seen nañu leeru sa sayiduna muhammad keroog ba mu agsee ah man kaana fil ummil qura képp ku nekk ci ndeyu dëkk yi moy màkkatal mukarrama képp fa nekk rek keroog bi Moustapha juddoo leer ba dajale na say bët ak sa ginnaaw ak sa kanam sa ndeyjoor ak sa càmboñ ndax leer boo xamante ni fes na màkkata xayrul xuraam mooy màkk ba nga xamante ni moo gën ci dëkk yi fa tabarakallahu moo tax eh, nuurun Seydi Hadji Malick door a wax leer la minan nuuri bu tukkee ci leer xat sa dëgg-dëgg aw ndax taxu dénk nañ ko kan xikaman ka nga xamante ni moo am xel te xereñ kooku kan la Sayyiduna Muhammad tafiidu dana bëbbee faydan akub sotteeku alal axlaaqi jëme ci mbindeef yi maanaam mayu yàlla yi ci yonante bi lay jaaree jëm ci mbindeef yi yallaahu moom yàlla ci ngay déggee wax ji Seex Saydi Ahmada Tijaani wax ci jawahirul maani ne wa kullu ma afaada wa baraqa aw wa baraza min qadratil ilahi tatalaqa zaati sayyiduna muhammad wa kullu ma baraqa wa baraza min zaati sayyidil wujud tatalaqa zawatil anbiya'i wa kullu ma baraqa wa baraza min zawatil anbiya'i seex nee na tatalaqa zaati fa minni yatafarraqu jamia awliya illahi min nasatin aalam illa nafi fi suur loolu du lu tuuti waaw Seexuna Tijaani dafa ni lu bàyyeekoo ci xadaratul ilaahi ci jëmmi yonante bi la jëm benn jëmm àttanu ko lu dul jëmmu sayyiduna Muhammad moom la alaaji Ibrahima Saaxu di léebu ne diggante yàlla ak rasulullahi dafa mel ni ñaar ñu sëkk attaaya waaw ka leen ñetteel nag mooy Seexuna Tijaani ñi sëkk attaaya mu ne attaaya bi yàlla bu teggee baraada bi rek xiimal gaañi Pape mansu te jaarul ci loxol sayyiduna Muhammad ku naan rekk lakk faaw mu teggi baraade bi jaarale ko ci loxol sayyiduna Muhammad nabi jiri fuural mus naana jiri fuural mus naana jottali aji xiimkat ga muy seex sayidi ahmada tiijaani ku mu xiimal boo naanee dina neex te doo lakk kon mustaphaay togg attaaya ju bàyyee ci yàlla suukar bu bàyyeekoo ko ci sayiduna muhammad Seexuna Tiijaan yi mooy ku koy ki koy xiim bu ku mu xiimalul doo naan moo nga dégg wax ja xat saqaani kasal mahabbati waaye fan la ko jële min fuyudaati xaatimil awliyaa yi waaw yàlla nàndal sayiduna Muhammad kaas goo xamante ni keroog ba mu ko naanee Seexuna Tiijaan yi keroog ba mu ko naanee tabaarakallaahu la yëg ni yore na mbir yi waaw waaye kaas googu keneen ku ñu ko nàndal yaa ngi ko jëlee ci faydu Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Pape Mansour ci gàttal mastafada faydatun min mustafidin illa bi faydi Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yooyu lay junj fii muy bopp boobee nga xam ni dana sotteeku ci bopp bu Cheikh Seydi Ahmada Tidiane dafa bëri ay buntu nekk bopp boobu fa bëri ay buntu moo tax tafiidu Euh, xikaman faydan bobbi boo xamante ni tafiidu dina bobbeeko alal axlaaqi jëm ci mbindeef yi ñu séddale ko moo tax cheikh nee na loola bu jógee ci yàlla moo ngi jëm ci jëmmi sayiduna muhammad bu jógee ci jëmmi sayiduna muhammad kenn du ko àttan lu dul cent vingt quatre mille yonente yi cent vingt mille prophètes yi nag bu jógee ci seen jëmma yàlla def na loo xamante ni ci man man seexu seexuna tijaani naa ko àttan waaw man nekk maa koy séddale képp ku doon wàlliyu ku ma séddewul rek doo naan waaw ci kaas yi may xiim ci la gaa ñëpp di séddoo wata tafiidu faydan alal axlaaqi yallaahu bab alxaaji Mansour tabaarakallaahu ñaari bayit yaa ngi noonu ñu jëme ko ci mbokkum jullit yi muy taysiir bu seex sayidul xaaji malik radiallahu taala anhu mu ànd ak ay salaatu yoo xamante ni daañ ko indi ci biir tabaarakallaahu salaatu yooyu yëpp Cheikh Seydul Xaaji Malick dugal ko ci biir taysiir wi ñoo ngi ñaanal mbokk yi Thiam Sono TV yal na yàlla defal leen jàmm yàlla sàmm leen ci biir ak ci biti bi barakati sayidil wujud tele bu tedd bi yàll na àgg foo xamante ni ñaanuñu ko yàlla tabaarakallaahu ñaanuñu ko yàlla muy ñaan bu doy waar wallu yoo ma ko ñaanaloon mu ne na la yàlla may loo ko ñaanul xam nga li nga ñaan rek nga xam mais loo ko ñaanul xamoo ko waaw mu ne yàlla na la yàlla may loo ko ñaanul tabaarakallaah bu boobaa yàlla dafay sëkk rek di def yàlla na ko yàlla def ci télé bu tedd bi di ci am Sunu TV mbokk yi leso baa ngoog wasalaamualeykum wa taala wa